jigéen juy tëñ ji ndax sëñ naa armal ngir aj jigéen juy tëñ ji day du du tukki du kon du sañ a armal ngir aj wala umra xanaa mu demoon ba màkk ba armal ba noppi borom kër daal di faatu kooku moom dañ ko wax ne ko na àggaleeg ajam wala umraam ko defee dora a toog nag ngir tëñ waaye bu fekkee ne ñu ngi ci barab di ko doon waaja aji wala yu mel noonu fa borom këram faatu daa war a toog ci fi mu dëkk ba iddaam jeex wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na euh, dafa gis bu ñuy xutba ajjuma ñu na nit ñi naan amin te mu dégg ñu ne bu ñuy xutba kenn wax muy laaj ateb loolu ak bu noddee ba noppi euh, ñaan gi ñuy baaxoo ñaan ginnaaw noddu nit ki di ko jàng bu ilimaan tàmbalee xutba ñuy def waaw xutba dañoo santaane bu ko ilimaan dafay déglu waaye sax fekk ñaan nag nit ñi seen waaye nañ ko yàllu xëy na biral gi ko biral nag moom dëppoo wut ak moo sëgam Malik saa bu imaam ak seet ñaan wala boog ci biir bi muy ñaan wala muy muslu nañ koo wax amin waaye dañ koy dañ ko yàllu naka noonu su ilimaan euh, jullee euh, bu noddee ba nodd gi daanu ñaan googu euh, bëgg nañ ko jàng kon bu fekkee ne ilimaan si boobu sax li ñu ko sant mooy mu jàng ko bu ko jàngee euh, balaa tàmbali xutba kon ñu ko mën a jàng loolu lañ ko sant ndax duñu ne xu ndodd gi day daanu moom sant nañ ko mu jàng ñaan gi kon bu koy jàng ñu ci def yëpp mën nañ ko jàng ak lu mën a xew bu jàng it na ko yàllu na ko yàllu waaye day su ko jàng ci kaw moom ni ki amiin it kenn du ko wax ca kaw bi mën di xutba a taala alam mbokk mi laaj nee koo xam ne bisu tabaski da ci am am tudd def waa tudd dañ jaar santaane tur deret santaane ci moo tax dañuy wax ci mësa bi ne ko defe ne baax bi nag dañuy wax ñoom ne euh, ñenn ci ñoom dañuy wax ne euh, tudd euh, tabaski moo gën a fàttali kon bu fekkee ne men la am te yaakaarut meneen ci fan yooyu na ko tabaski waaye bu fekkee nag naa tabaski ñetti fan la ñaareelu fan wala ñetti fan am na yaakaar xëy na ne man na ci am xar moom tabaski ñaareelu fan wala ñetteelu fan bi kon xar mi ci bisu iid bi na ko tudde wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na nit ku wére ndax sañ naa leb ci banque ngir faju bu fekkee bank banque rek fa te wëra dëgg di wéra dëgg wax ne mëne su ko sooxale su na lor la ku lor la ku loro nak sañ naa leb ci banque bu ko defé waa ah, banque wañee gàddu bakkar ba kon lepp bank lepp bo xamné xam ne ci ba dal ku lor rek moko señ fa kene wëra wéra agna ci lo xamné mëne su opéré wala yu mel nonu te amu fenn fu mëna jaar mbaa ko ko leb ku ko dimbulé su boobaa wa naa leb ci bi wa bank woni gadu bakkar ba wallahu taala alam mbokk mi laaj nee ndax xutba ba it moo xutba bu ajjuma ñoo yem ci atte ci déglu gi euh, déedéet na yemuñ xutba ba it dañoo sopp déglu gi waaye nekkul lu war te bu dee ajjuma nag lu war la wallahu taala alam euh, mi laaj nee na ilimaan joo xam ne ci jullit ayit ci rakkam njàng mi nee na biñ ba sore nag ñu sabal ko mu dellusi Euh, kàbbar kàbbar yi baamuwaat ñaan mi ndax day sujjóot wala déet waaw bu fekkee noonu la dafa day day sujjóot ba'da salaam ndax la bu fekkoon nag dafa wéyal ba àggal a dara du ko war euh, nga ne lu jiital moo ko raw taala alam mbokk mi laaj nee na ci set boo xam ne dafa am ay nataal ndax sol ko dagan na waaw bu dee nataal bu am bu nit wala mala wala yu mel noonu day am na ci waroom xam-xam ñu wax ne bu fekkee ne ak eh, màggal taxut dagan na nga xam ne da koy sol waaye mën nga koo sunni joggi ko day tilim di taq loolu lépp doo doo jàpp ne daf nga dara su boobaa na am na ci waroom xam-xam ñu wax loolu wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na nekk moom am xarum tabaskeem bi mu koy rendi ay chrétiens yu mu dëkkal ñoo ko doon jàppale ñoo ko feesal it nee yit ñoom chrétiens yi dañuy dëkk deret bi ndax dañ koy soxla ñoom muy laaj yooyu waaw bu fekkee ne yow yaa ko baax na moom nag mu jàppale la wala mu feesal la ko loolu dara ne ko ci eh, mbiri àdduna la ñu dimbalante ci jëmmi rend mooy jaamu yàlla loolu moom dañu nga def ko yow sa bopp ki nga koy def loolu it doon koo xam ne diine ngori la amma fees gaag jàppale la ci ba ngay reeni moom loolu dara nekku ci amma may leen dara di ñu di yóbbu moom loolu dafa ndax dara so dara nag ñëpp la ko yàlla tere bu jàppale kenn ci muy jëfandikoo loo xam ne dëgg moom di ko jëfandikoo wallahu taala alam mbokk mi laaj ku doon julli am wàccu dikkal ko ci biir julli gi muy def wàccu bu fekkee lool te soppikuwut ñam wam lekkoon da la wàccu te war naa tuuti dara kon du yàq ci du yàq li ci waaye euh, su soppi ko nag nga xeeñ loolu solo la boobaa day yàq julli gi su fekkee dafa bari lool yàq julli gi su ci war naa tee dara te ko it yàq julli gi allahu taala alam mbokk mi laaj nee na luy àtte boole ñaari mbubu benn mi am sobe benn mi amul sobe nga di leen fóotanoo ci mel ndox alors li jaadu li jaadu woon mooy mbub mi am sobe ñu fóot ko ba sobe sa moom laaj boo dee setal nag nga bëgg ko ngir mu set nga door ko boole yeneen yére waaye soo leen boole woon nag dangaa war a di ko xóot di leen xóot ñu naan yëpp kon leer na ne potit ñi sobe nekkatu ci sëfu sobe xëy ñu maa ngi am benn cooy rek la bëggut te boobaa mi laaboon ak mi laabu yëpp ñooy marché ñàkk laab wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax nit sañ naa miiras boppam njëkk muy faatu eh, miiras mënta am te faatu amul kon xëy na nit ki séddale alalam balaa faatu la bëgg wax nit ki moom alalam sañ na ko maye li am solo rek mooy na maandu na ko def ci maandu suy may na may njaboot gépp loolu ci sañ na ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne bàyyi giitleem moo ko maye te bàyyam bi ko juróom mi ngi fi ba maye ko ba mu sëy ba borom këram jotee moom ñu doon ko yëg muy laaj atab loolu bu fekkee noonu la demee loolu suba la bu ci doom juddu woon it dañ koy yéegal ci kañ ko mayoon ndax euh, am lënt mi ci am lëntu fas yuñ ko fas donte ñu ko fas waruñ ko woon a fas kon buñ ko fasee jote googu moom euh, du lu jaadu waaye lënt la du neen ci caw yar yoon bu ci doom juddu woon it dañuy jàpp ne kooku mooy bàyyi wallahu taala ala bokk mi laaj nee na euh, koo xam ne dañ ko doon may soxna ab sëriñam la ko bis waaye ña ko may nag ñoom nee nañ bis boobu duñ ci mayee seen doom muy laaj ba xam nu ñu war a def waaw suñ ma nee waxtaan ba déggoo de mooy li gën ci benn bis bu loolu nag ñi nga xam ne ñooy mayee seen doom ñoom ñooy tànn seen bis ñu gën a yooyu ci tànn bis moom day ñaan si ñi koy may ñoo koy wax bis sàngam ñëw ñu may la wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne ay waajuram dañuy dund te mu am lu mën a demee màkk ndax day yóbbu ay waajuram mu noppi wala moom mooy dem waaw màkk jaamu yàlla la boo xam ne kii ko man la ko yàlla gàll bu fekkee moom moo ko man moom la yàlla gàll mu def ko su ko defee ba noppi nag ku bëgg dimb dimbale nga def ko sañ na laa dimbale muy ay waajuram wala ñeneen waaye moom mi mu war moo war a dem màkk ndax bu yóbbu ay waajuram te warul leen ñoom xamut ba xam déwén luy xaw xamut dana ko fekkaat xamut dana fekk mu mën ko xamut dana fekk mu mu moo tax ki ki ko man daal kooku la war boo ko defee ba noppi nag koo bëgg dimbale mu ngi def ko sañ nga ko dimbale wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na yan xeeti njaay mooy yi nga xam ne sañ nañ ko koo jaayante ci jëndante duñ ko gis waaw jaay de benn danañ sukkandiku ci ak gis waaye danañ sukkandiku ci ak melal mën ngaa bañ a gis njaay mi waaye wax ni mel soo ko waxee nag surtout ki ko jënd jëlee fekk mu mel noonu njaay ma day rëy bu melokaan yi nga wax dëpp wut sañ na ko xaj waaye luñ mën a melal doon rek sañ gis na ko jaay euh, ci melo te duñ ko gis waaye nag nañ fekk suñ koy gis na mel ne nañ ko wax woon wallahu taala alam euh, mbokk bi laaj li sunu borom wax ci suratul baqara wa ma tadbu shayaatinu ala mulki suleymaana laaya jooju Euh, luñ ci jublu wala li ci boroom xam-xam tafsir di wax mooy yahood yi li yonent yi indi woon ci ñoom dañ ko fa bàyyi dem di topp njabarkat yi seytaane yi nga xam ne ñu ngi woon ci jamonoy Suleymaan alayhi salaam nga xam ne yoo xam ne dafa amoon jinne yu daan déglu wax yu gi buñ ci jotee dara dem boole ci yeneen seeni njabar di ko bind nak di ko ye yéegee jël yépp dajale ko gis ko sul fi faato nak nag ah, jinne yee ñëw ko wan ñi jinne len Suleymaan li la yor njabar gi la yoron ci la li fi won ñu bàyyi nak la len diine andi won top loola te du dëgg na oma kafaru Suleymaan yeddi wut jangut ak njabar daawut ko ak jabar ndax jabar kufur la seytaane yi ñoo ko doon def di jàngal ne njabar ak it nag la yàlla wàcce woon ci ñaar ñoo xam ne wax na ne malaaka la ñu woon yàlla wàccee leen ca baabil ñuy wan nit ñi ak njabar ni mel ngir ñu xàmmee ko di leen nattu ku ñëwit dañ la wax ne lii day wedd yàlla la bu ko jàng boo lànkee nag ñu jàngal la ko ñu yooyu nag la yëfoo yu doon jël ñoom doon ko jàng di ci tàqale nit ak soxnaam di ci lore waaye li ñuy lor lépp nag day fekk yàlla ànd lañ doon jàng it lu leen di lor la waaye amul leen njëriñ loolu la borom xam-xam tafsir wax ci ay jooju wallahu taala alam ngay mën di jot vidéo yu am solo yi bay koo ci HDP religion da ngay bés fii ñu wax sabonné boo noppee ñu ci cloche bi